laaj bokk ci ñu nàq fen ci Sénégal moom nga jël en plein plateau nga ne parce que wax na rek lii mu wax euh, dañuy remettre en cause li yor-yor bind wala leneen lu ay internet fa nekk wax loolu benn la kooku wérul moom moom Diaspora News fii ci biir ndax fen bokk affaire loolu beneen la wala mu bokk ci mouvance présidentielle ñi àndoon ak Macky Sall loolu leneen la pétition lan moo ci doon violence pétition pétition du n'importe comment nga koy bindee. yow la sa xalaat nga indi motif luy tax par exemple Macky Sall bi muy dem bi ñu waree dem Delahaye ñu taxaw fa ay sénégalais demuñu jël seen ay yëre yu weex tuur ci luy màndargaal ne deret la ñu wane ne kii loxoom dafa takk deret Macky Sall dëgg la du n'importe du n'importe qui président Sénégal la mais dafa tax ay nit faatu fi kenn defu ci ay enquête ñu fen ñu brandir ay policier taxaw di wane ne. ki yëg kii mën na li ñu génne numéro 9 bu ci taxaw ñu gis leen ñu génne APR dugg 16 par am ci ñu dugg 16 parti socialiste bii ci Colobane. ba pare yor ay ay oto yoo xam ne mooy oto yi nga xam ne ñu ngi ko maye sur le domaine de la santé wala l'éducation muy coopération allemande wala UNICEF wala nangam xeetu oto yooyu lañ leen jox. ñu di ko filmer dëkk bëccëgu ndara kàmb ñëpp di ko gis li fi xewoon 2021 ñëpp xam nañ ko. président bu bu bu responsable ndomba tànk bu ñu koy jox waxuma la woo ko ci université ma ma pour information tuun Mélenchon hmm. bi mu ñëwee fan la waroon a njëkk a dem Sénégal bi mu waree jàkkaarloo Ousmane Sonko université Cheikh Anta Diop. Hmm. fu mu mujjee la mujjee ci CS xam nga lu tax. non kooku Juan Branco la wala su Mélenchon. déet Mélenchon Mélenchon xaw ma Juan Juan Branco la Juan Branco. wala wala Mélenchon voilà Juan Branco la waaw non non non kii la Juan Branco la. si oh, sees la mujj. mujjeewul si sees. lu tax mujjeewul si sees lu tax mu mujjee si sees te defeewu ko fële. Euh, université université Cheikh Anta Diop. parce que dafay am ñu jóg ñooñu bu ñu baree seen nombre de pétition yooyu bu ñu def te Amérique ak dëkk yooyu fii pétition ak loo fi mën a def loi bi encadré wu ko mais foofu loi bi dafa ko encadré. ñoom dañ koy jox parole ñoom ñu doon ay sénégalais bind dafay am ay américains yoo xam ne ci pétition bu ñu ko gisee signé ko ak yeneen i nation mu bari ba bari ba bari univers université bi daf ci tenir compte léegi bind pétition ne kii neexuma ak taxaw li tuun di comparé bokk ay militants yoo xam ne par exemple nga jël di di di di gra euh, war a ñu war a nekk grad euh, gradation lañ koy wax nga war koo jël xam ne lay naqari Israël euh, la lan lu naqari Israël neex neex na la parce que la muy toroxal Palestine kiiwu la nga bëgg a bàyyi ci imprévu jékki-jékki sa mbubb nga ne ko nii xam nga ko bi nga koy def xam nga ko parce que yëglu woo ne lii laay def alors que bu dee pétition prévenir nga kooku ne ko kii ngay ñëw neexuñu te nombre d' élèves yi nga xam ne foofu bu fa ñëwee moom di jël parole ay élèves américains ñoo koy déglu ay élèves yeneen nation yu fa nekk ñoom ñoo koy déglu li ëpp ci mbir mi ñoom ñuy organiser bu leen neexut pétition yi bu amaatee luy xew jour boobu day taxaw ñu yuuxoo ko loolu université boo gis wala organisation boo gis dañ ciy tenir compte mi ngi mel ni Pape Djibril Fall bi mu taxawee fii ci euh, fële ku mu neex nga naqar la ko mais yuuxoo ci démocratie la bokk kuñ daan tàcc boo dee bañ la yuuxu y a problème xalifa buñ daan tàcc bu sorti Barthélemy Diaz boo xam ne ci euh, tax na ñi mu seqal yeewi en tout cas ñu bëri neexu leen wala ñi ci ëpp boog muy waa ay waa Pastef yow fexeel ba ëpp fa waa Pastef bu ne la wu nga ne ko waa mu taxaw di wax man man man man fa la ma fekk bi ñuy yuuxu may loolu mënoo koo tere kenn. kon ndaw si pétition la la def bind. ne nombre de personnes yii bëgguma kiy wax ku d'accord ak man bindal ni man. ñu jébbal gaay mbir ma di yokk di yokk di yokk di yokk ba université bi gis ko mu jaaxal leen ni ñu ko waroon a joxe kàddu ñu dindi ko ba pare invité leen ci teg leen ci du benn waajooju xaw ma borom diaspora nga xam ne fen rek la man taxaw fii yoon yónni plancé la benn affaire nga taxaw fii naan te kii ma vérifié un sénégalais d'Allemagne parce que xam nga ne sa xam na waa ji ngay tàgg ñooñu wérul seen i wax wérul dañuy fen boo ñëwee teg fii pour mu contrecarrer affaire yoor yoor yoor yoor c'est un journal bu par parloo leneen la mais lii c'est des faits ko def ñu ngi koy def ci live ñu ngi jàkkaarloog moom ci live TikTok yi boo demee da ngay vérifier université bi tuddul Colombie université Columbia la noonu lañ koy waxee dafa am ci Amérique mi ngi mel ni tey nga ne New Amsterdam mi ngi mel ni hôpital New Amster Amsterdam mooy hôpital bi nga xam ne soo yeggee ñëpp la ñuy jël moom it noonu la mel te pourtant mënoon nga ne Amsterdam wala nangam euh, comme ni nga gisee George Washington am na rii yoo xam ne foofu ci Amérique wala ay kii yoo xam ne ay France la parce que Amérique bul fàtte ne waa Angleterre waa France waa Allemagne ñoo ko peuplé bokk ko ak ñi ñuy wax les Amérindiens ñoo fa nekkoon bi anglais yi ñëwee dañ faa juux indi africains yi ñu ñëw maanaam mu doon benn genre nation boo xam ne àdduna bépp fu bokk daje mm-hmm. Chinatown fu mu nekk Amérique noonu la amee mu ngi mel ni nga ne kër Serigne Touba gi rek Harlem sax am na fu ñu tuddee Sandaga bu yàggee yàgg yàgg yàgg mën nañ dem ba tuddee ko Sandaga mhm. chronique il faut nga jéem a xaw a am tuuti benn culture générale tuuti daf lay dimbale uh-huh. bu xaw ndaw tuuti les pétitions la tudd mais on a pétition la ñu wax. Euh, waaw pétition ban danger. man bi ma koy laaj ban danger ban danger moo nekk ci pétition. j'ai envie de naa bu ma kenn dagg. non ah, mais léegi nga bàyyi ba ma daaneel nga doog a jël. mais léegi da ngay terminer. waaw ah, non danaa terminer. ma jox. ma ne bu ma la interpellé da bàyyi ba ma pare. parce que bi nga wax terminer te li ngay wax bi nga koy wax xam naa ne waxoo dëgg kii la ko wax waxu dëgg. bi nga nee Sénégal daal maa war ngaa jëlee ci kooku yow. war nga rusa taxaw jëlee ci kooku yow yaa jël temps bi yaa ngi commenté rek ça. ah léegi inutilement léegi ci foofu. muy ci àdduna bi ñi ñuy du n'importe kii ban ki mun da nga yaakaar ne mënoon naa def yenn yi ñu far ko moo tax li yóbbu Macky sàll foofu. man dama bokk ci Sénégal yi léegi bëgg euh, Macky Sall bañ fa teew li ci euh, turu Ousmane Sonko di wut aussi. waaw non yow mi ne nangam mën naa doon militant Pastef. mais question que ne militant Pastef la li muy wax maanaam yow doo ko vérifier ñoom université boobu ak ñeneen ña mu yóbbaale bañ signé pétition yi ñoom daf leen a moom war na leen a jaay affaire politique ñoo xam ko ba pétition bi rek ñoom ñu ñëw signal ko ko noonu ba mu bari bañ nangul ko ko nekkal militant Pastef man saa wolof maa ngi nii nee naa Nations Unies président bu ay loxoom taq deret lañ lañ lañ jox fële parce que dafa seetaan boom ay nit ko fii am na ay ay plainte euh, fële nu mu tëdd euh, CPI. yu ñu ko fa tegal yu ko fay xaar ku mel noonu dañoo war a nekk ba évacuer loolu doo ko jox benn ndomba tànk parce que Nations Unies ñun ñëpp la. àdduna bi yëpp la. man damaa dem plus loin que ça. pétition boobu dañ ko war a taxaw ndomba tànk boobu ñu jël ko sànni. d'accord foofu laay waxee mais pétition encore une fois du xeer quoi. y euh, je pense que ça ñu <laughs> ñëw fi pour ñu jàng jàngale mooy pétition pétition du arme pétition du consigné danoo xam ne définition pétition ba pare di ci wax tudduma arme tudduma verbe dama ne pétition tudduma benn définition ñàkk ma xam luy pétition vraiment te si ma wax du violence qu'elle soit physique ou verbale waxuma loolu te du ma ko fi wax parce que xam naa li may wax. Euh, j'aime pas di di di di mais li may wax c'est très claire dafay dafa dafa sourcé am date dama la ne étudiants palestiniens yi mhm. ak ñi gëm seen combat boobu ne dañuy manifeste contre li Israël di def Palestine mhm. nga boole ci l'université de Columbia mhm. Emory ak Arvar étudiants yooyu bu ñuy manifester manifester wuñu parce que jour bi nga xamante ne dañuy jël seen diplôme c'est absolument faux c'est comme ñu ne dakaar Sénégal université yi fi ne gëm ngeen ne dana war a soutenir Mali ñu ne waaw ñu ne donc université Cheikh Anta Diop jour boobu jour dimanche génn la 9h ngeen taxaw ci buntu université ngeen wane ne da ngeen àndul àndu leen lu xew Mali waa UGB def leen noonu waa Bambey ngeen def noonu. Mhm. c'est différent ñu war a joxe ay diplôme ku ne di yore sa sa sa chapeau nga ñëw di ko def loolu waxuma loolu loolu amul waxuma loolu man xam naa li may wax. beneen bi mooy dama ne pétition dafa am loo loo loo looy combattre wala message bi nga bëggee jàllale nombre bi nga ci am boo ko atteindre ñu ne la sa objectif jot nga ko. Mhm. jotewul ak dara li am. je pense que tey pétition. tey ni ma la ko expliquer ça que lii politique la <coughs> loolu il faut nu xam ko c'est de la politique et politicienne d'ailleurs c'est exactement ça c'est de la politique politicienne ki koy def dafa am fu mu bokk au nom de quoi elle elle kii ba war a wax ne diw di fi wax mooy kan mhm. waxal du wax sa programme yow yaay université de Columbia <laughs> yooyu yaay université Columbia bu ñu koy créé juddu woo existé woo. ndaw si pétition la woote ba ñu. pour que Macky Sall bañ a prendre part à cette à cette cérémonie. kon pétition bi moo réussir. non man xaw ma da réussir réussir dama ne. te parce que parce que bu fekkee ni ndaw si rek moom moo def euh, à cause de ndaw si rek man foofu laa wax ne. information ndaw si rek si yow ndaw si rek defu ko. ok et quand tu des étudiants américains. ça ça c' est quand même ça c' est faux si ñëwuñ ko c' est faux ça. Hmm? tu penses que mën nga yóbbaale nit ci loo combat boo xam ne du seen combat un un malien je malien wala burkinabé mënuma yóbbaale loo xam ne du sama combat même si le Malien est là ñu def parce que damay gis ne cette cause la elle noble gis naa sama bopp ma signé ko ma adhéré yow yaa ngi def combat boo xamante ni te loolu Sénégal Sénégalais. le Sénégalais il est paradoxal et contradictoire à la limite dangereux. non non quand je dis ah, ñi may wax sénégalais ñi may wax lu mooy ceux-là qui jouent avec les gens. et qui jouent qui se jouent de d'eux-mêmes di foyee seen xel yi di foyee nit yi mënoo foyee nit ñi sax mais da ngay foyee sa xel parce que quand tu dis yow da nga gëm justice yow justice waxul justice soppewul kenn dara li yow léegi nga toppee nit ñi dara ba léegi nga ne yow léegi waroo fi def dara yow kan te yow yow. kenn waxu la doo fi waxee. yow nga ne diw du fi waxee. mais Thioune li ma bëgg comprendre mooy. li ma bëgg comprendre man mooy ci ci scénario bi. waaw ndaw si moom mooy kan. et puis bu naka la def ba réussir ba gars yi renvoyé Macky Sall ba mu mujjul jël prise de parole ndaw si tax dafa créer pétition am ci même bu nekkee des étudiants américains ou africains yu nekk foofu wala sénégalais ñoom ñoo signé ba ndaw si am lim bu ko mën a permettre bu mën a permettre université bi ñu interrompre Macky Sall privé ko de prise de parole loolu laa bëgg xam ko information loolu mooy problème bi parce que euh, waxoon nañ ne pétition bi. Uh-huh. Euh, euh, réussir na ba ñu interdire loolu président Macky Sall mais on parle aussi que ne fake news la peut-être lancé na pétition bi. donc fi mu toll nii mais yeggaguñu fi ñu fi ñu koy la pétition. atteindrewul son objectif. xam lan moo tax ñu privé Macky Sall prise de parole bi. kan kan moo la dañ ko privé. yor yor de moo loolu la waxoon mais on parle di que ne yeggaguñu foofu. aussi xam nga mooy problème. donc information bi yor yor joxe c'est pas authentique. c'est pas avéré. Ah, d'accord elle n'est pas certifiée. ok elle n'est pas certifiée. c'est parce qu'elle n'est pas certifiée. en plus. quand on parle de crédibilité man bëgguma di wax ci crédibilité média wala nit. Mhm. nit bu la fenee ñetti yoon bu la neexee nga nga nga sus nga bañ a gëm lu mu la wax ces médias là man bu ma di wax ci ay médias mais média médias a ci man daf maa mm-hmm. mentir trois fois ma gis mm-hmm. Mm-hmm. ma weddi ko te moom mu xam ne weddi na ko te du du du ko rectifier yoor yoora ah? waaw ah ok fen na ci Barthélémy kaw Barthélémy Dias du code général des impôts dafay appliqué wu c'est absolument faux loolu du droit parce que quand tu dis code général des des collectivités territoriales boobu parle de crime. Un élu local condamné pour, définitivement pour crime perd de plein droit son statut de maire. Mm -hmm. n'a jamais été condamné pour crime. Mm -hmm. Donc c'est faux. Mm -hmm. Quand également que Macky Sall, une fois au Sénégal, sera arrêté pour haute trahison, c'est ah, pour crime contre l'humanité, c'est faux. Mm-hmm. Parce que crime contre l'humanité, à la CPI, la CPI, nous avons l'air, nous saisir. On est à partie, la CPI, ou bien le, le, les Nations Unies. e quand man su may intervenir ci dossier ci benn réew day fekk justice réew boobu deful liggéeyam ici est-ce que la justice du Sénégal a enclenché une procédure contre ces personnes là ngay cité bay naan dafa bañ a defal defu ko donc di gis ne en matière procédure procédurale c'est absolument faux c'est pas du droit donc loolu c'est da nga koy ne ko koy koy manipuler dans ce cas tu parles avec qui au Sénégalais averti tu en train de raconter des histoires pour faire plaisir à une loolu mooy lu nekkul dëgg si réewum Sénégal nañu waxante dëgg. donc il y a des journaux manipulateurs. des journaux menteurs. Et, des journaux qui ont qui ont menti, qui des, ont manipulé au Sénégal donc, et les Sénégalais. Donc il y a donc des journalistes menteurs. Bon, c'est pas un journal de ah, parler. Euh, journal moom du bind je sais, je, <laughs> sais. non, je dis un journal ne ment pas, fait mentir à un journal. Donc ku koy bind mooy. Yàgg na fi dal léegi ma wax. ci ci ci loolu. mooy baat bi Aminata ko. du ah, saa wolof rek moo taxaw ne ah d'accord du saa ne. nangam day fi léegi nag ku man a jàpp ne sëñ Saliou Gueye yor-yor day nangam nangam ba pare mën a jële ci ñuy wax le Sénégalais d'Allemagne gis nga pétition xam nga lan lay jariñ fu justice amut. du question que ne Macky Sall justice topp ko mais ñiy def pétition dañoo bëgg justice topp ko bon sang. Mhm. d'accord maanaam dama bëgg pétition gis nga fii fii dañ ñoo maîtriser langue de Molière képp nga man a def. Mhm. mais culture générale moom. sauf que pétition boobu. ma ne danga may may ma yeggalee ma ne ma ne danga may. non non non loolu ngi confondre. la pétition c'est quoi l'objectif non du loolu. non mais du loolu de de soxna si. c'est quoi mooy la non participation de Macky Sall à la cérémonie et non pour que ñu topp ko ci justice mooy Macky bu mu jël part ci événement bi. bu mu jaar jël pas ci événement bi bokkul ak nañ ko jox topp yoon université kañ la commencé topp yoon voilà université kenn lay toppaati si yoon. je pense que da ngay dem justice kay. je pense que loolu moom du débat. c'est une confusion moom du débat. may ma tuuti man waxuma loolu. waxuma ne waaw bokk man man. bu ma daggaat baal ma yeggalaat baal ma yeggalaat université. Ah. du àtte. Ah, kon kay bu la justice. université du àtte. Ah. mais mënees na faa def pétition. beneen bi mooy dañu ne bu ñëwee bu mu fi jël kàddu bu mu fi jël kàddu organisateur boo ko wax mhm. Youssou Ndour soirée taxaw nañ fa commencé wax lan la wax nit ñi ko doon wax man may naa leen tant de minutes parce que lan la il est intelligent parce que xam na ne loolu bu ko deful soirée day yàqu mu bàyyi leen ñu wax ba pare mu continuer soirée am te ñooñu dañuy raisonnable dañuy d'accord. c'est différent. non non damay damay jox exemple rek may ma tuuti. mais est-ce que doom may ma yeggale xam nga tey bu ñuy wax tey xam nga. saa saa buy wax su daggee nit. ay nit dañuy taxaw ne saa lees jiw fii man ne damaa bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo di dëggu quoi si si désolé daggu ma la bul ma dagg. université du mooy àtte mais fa la nit ki di waxee te université étudiants ya fa nekk. son pas ku ñuy manipuler parce que ils sont instruits mais boo jëlee benn mbir nekkal militant Pastef nekkal Ousmane ko nga bind pétition ne Macky Sall mii di ñëw waru fee jël kàddu ci université colombia bii nga xam ne lu baax lañ fi wax Amérique bi nga xam ne terre de démocratie la mu nekk fii ku mel nii waru fee wax boo ko bindee sànni ci université bi ñeneen ak ñeneen muy ay ay sénégalais wala ay américains wala étudiants yi fa nekk bu ñu wuyoo ci pétition bi. ñooñu danañu la wax pour bañ seen kii bi ñëw à l'avenir yàqu ñu jox la ay garanti mën na amit ñu jox la garanti ba yegg foofu wax loo mag Sall loolu waxuma ko mais ndaw si ne am na gain de wax ko fépp ci réseau yi ñeneen ak ñeneen dégg ko. d'accord parce que Ousmane Tounkara. Mm. man déglu naa ko mu wax du ma du ci moom laay jëlee ak yu deme noonu. wala keneen ak keneen sëñ Saliou Gueye mën naa wax du ci moom laay jëlee mais dafa am ñeneen ak ñeneen ñu wax man bi ma paree gis nga man in jaakum faasixun bii. yaakaar naa à deux heures du matin laa toog di vérifier information bi soo xoolee fii boo xoolee ki ma ki tontu nii man la tontu te dañu nekk ñun ñëpp ci benn ci benn ci benn ci benn groupe boo kii mën la tontu moo waxaat la kii mën la tontuwaat lan moo tax parce que moo dugal lii ñeneen ak ñeneen tontu ma. ñoo xam ne ñu ngi feneen ak feneen. di dëggal ne man di dëggal am na pétition bi ndaw si am na gain de cause. léegi nag man bu ma jëlee bu may recoupler man. Mm. du sëñ Saliou Gueye moom a tuddee wala naa nga wala kum neex nga jàppee neneen mais man li may am mooy fen baaxul. que ça soit muy kële ak kële. d'accord ñu may élément Barth mu ñëw mais bu ma ba pare xam diaspora news ka fa nekk mm. sénégalais d'Allemagne nga xam maanaam li ñuy wax euh, partialam maanaam fi mu fare ba pare yow nga dem fa demati fanaan euh, benn waaye il paraît. d'accord élément baax yaa gën a xam ne moom moom diaspora merci ça ñu bàyyi élément mu man damay ñëw rek rebondir ci dañu ne dégg naa fi kàddu ñu ne Macky Sall amaana koo xamante ni loxoom dafa takk deret wala rey na suñu ay doom kon bëgg naa Mimi Touré mu génn leeralal ma moom mi bokk tey ci état